adjoint porte-parole daayira bi mu ñëw yëkkati kàddu yi list bi nga xam ne nii ci leen tënk lenn ci kilifa yi fi teew kon Serigne Cheikh Touré bu noppee kàddu gi it danañ ko jox Serigne Ibrahima Niang mi nga xam ne nii mooy porte-parole daayira bi mu yëkkati ay kàddu ci tënk kàddu yu néew yoo xam ne nii daf koy jëmale ci mbokki taali taalibe yi nga xam ne ni ñoom lañu séqal daayira bi ak liggéey bi bu Ibrahima noppee sunu baay sunu jëwrin sëriñ Njaga Mbay di kenn ci magi sëriñ njaga may moxtaar xëy si na fi ci suba yebal fi doomam ak mbooloo mu takku sëriñ mbàkke dabasaar mi nga xamante ni nii moo fi nekkal sëriñ muudu mbàkke moom sëriñ abdourahman ak sëriñ muudu jóob yebal nañ fi sëriñ abdoulahi jóob ak sëriñ moor Baye Serigne Touré imam Daaru Manaan moom it teew na fi maam Thierno Dongo teew na fi yebal na fi it maam Thierno Dongo mooy ki nga xamante ni teew na fi teewaay fi teewal fi wàccel maxa gépp Serigne Khadim Mbacke ibnu Serigne Cheikh Mbacke teew na fi it ku dégg lii dàkkantalam mooy bis bi mooy sëriñ xaadim mbàkke xasida sëriñ muhammadu sëy di kenn ci mag yi sëriñ tuubaa yi di lu jafe lool ci jamono ji ñu nekk mag mu taxaw jàkkarloog jëmmi sëriñ tuubaa gis ko jëxëran mi ngi ci biir baas bi mi ngi nii toog ñëw na ci jotaay bi te néew na it tàntu yi dem fekk ko fa kon alhamdulillahi rabbil alamin waa daairatu taxsimul xadim teew nañ fi ak mbooloo mu takku ci njiital sëriñ Mouhamadou Darame ak Baye Xaadim Touré waa daairatul mawaahibu naafix bi lëkkale mbooleem jànkati xasida yépp teew nañ fi ñoom it ci njiital sëriñ Mbàkke Njaay ak mbooloo mu takku commanda Yoro teew na fi ci ndigalal Tamsir Jaxate mi jiite police Touba bi commandant Diallo mi nga xamante ni moo jiite gendarmerie bu tuubaa teew na fiit mboolem barrières yi ngeen gis mu nekk ci baas bi mooy ki nga xamante ni moo ko jox mbooloo mi def na loxoom bu baax ci bis bi moom commandant Diallo Serigne Moustapha Fall Mouride Sadikh di kenn ci mbooloo mi koo xamante nii bu doon wax ci moom fii ñu toll ci nim jàppale daayira bi mën nañoo téye micro bi ba suba li ci gën a néew mooy oto la duy essence tey ci suba jox ko mbooloo mi ne lu ngeen soxla ne leen ko oto bi doxal ba seen yitte mat kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm sëriñ Abdou Lahad Mbacké ibnu sëriñ Abdourahman moom sëriñ Afia rakk Maam Cheikh Anta dërëm ak ngërëm moom it teew na fi sëriñ sërif jenn yebal na fi rakkam ak waa këram sëriñ am di fall imam teew na fi ci suba it jàng fi wàcc fi ak kaamilu alxuraan sëriñ ahmadu njaay ca ndaam moom it ab limam ci kaamil alxuraan yi agsi na fi ci mbooloo mi sëriñ Moussa Ka moom it teew na fi sëriñ bàcc njaay di kenn ci mbooloo mi bokk ci daayira bi féetewoo fee ca Mbàkke moom it teew na fi te lépp lu ngeen fi gis muy baas baa muy weñ ak lenn ci rajo yi mooy ki nga xamante ni moo ko teewal teewal ko ci turu mbooloo mi def ko àddee Sëriñ Tuubaa kon moom it mbooloo mi ñu ngi koy sant baax te di ko gërëm Sëriñ Bàcc Ka di président handicapé yi di jànkatu xasida bu mag moomit teew na fi ak mbooloo mu takku ñu ngi koy sant baax te di ko gërëm waa daayira durus bi nga xam seen liggéey du lenn lu dul durus day yi sëñ Tuubaa yi ci njiital sëriñ Mourtala Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal yebal na fi sëriñ Alsaan Kan mu ànd ak sëriñ Cheikh Abdourahman Ñang sëriñ Omar Ndiaye sëriñ modul Mbay al imaam sëriñ Alaaji Silla ak sëriñ Ngunda Ndiaye ak sëriñ Mouhamadou Diouf ak mbooloo mu takku ñëw nañ fi ci turu daayira durus bi ak sëriñ Ousmane Diouf Sikulaay ak sëriñ Xaadim Mbay ñëw nañ fi ci turu daayira durus bi ak li ñu séq ak daayira bi di Miftaahul Muna waa daayiratu Miftaahul Muna dëkk fii ci koñ bi ñoom it teew nañ fi ci sooba léegi ñi ngi ànd ak ñun liggéey bi teew nañ fi sooba léegi ñoo ñuy séddaleel xéewal yi ñu fi def yépp waa daayiratu soxna jaara it ñoom it teew nañ fi teew ci liggéey bi ñi ngi sant nag ki nga xamante ni mën na ne fii ci koñ bi ak ci gox bi mooy bàyyi daayir yëpp suñ ko tuddee man mel na ne tudd nañ daayir yëpp mooy bay mooy boy bàyyi xaadim daayira ñi ngi koy nuyu baax moom it di ko sant di ko ñaanal fa mu bëgg a yegg ci xasida yi suñ tubaa yeggale ko fa rajo bu ci mel ni Touba Mbacke kenn ku ne dégg nga daayiral miftaawul mona bi ñu may leen fa seen émission waxtu ay waxtu ñu toog fa waxtaane fa seen liggéey ak la la caaju ñoom yemuñ ca loola waaye dañ fee teew teew fi ci ndigalal seen directeur Ibrahima Naar Fall sëriñ yi daali mbeng toog nii ak sëriñ Dam Fall waa da waa rajo Lam Fall FM it ñoom it def nañ nu mel noonu ñoom it teew nañ fi ak seen mbooloo ak ñun àndal ñëpp waa rajo Dunia FM ñoom it defal nañu noonu ñu ngi leen sant bu baax di la gërëm sëriñ Moussa Diop a ngi nii toog lépp luy jàll ci màggal gi fi mu ne boo demoon tëdd sablal bu la neexee noonu nga koy amee ba fajar incha allah euh, Kader Samb it sëñ Abdou Kader Samb moom it teew na fi ñu ngi koy sant bu baax te di la te di ko gërëm sëriñ Mbacke mbay sëriñ Mbacke Mbaye rajo Dijo FM rajo Lamfal FM lam rajo Lamfal FM moom it teew na fi mbooloo mi ñoo ngi sant ñëpp nañ ko waxee woon léegi li fi teew lépp mën su ko kiyee noonu waaye ñi ngi tënkaat incha allah dinañ ko jàllalewaat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbaa muy safa borom Tuubaa nee na yàlla su ma ko fàttali ko damay bëgg def yaare. mbokk yi ginnaaw bi dégloo Serigne Cheikh Touré ci kàddu yooyu noonu jàllale dañu déglu Serigne Soy sama guddi Ndakaaro def ko ku fa jaarate sa tànk ku fa laal saw yaram dem sawaram su ma ko sama diggante ñooñ jabooña kon ma bëgg a tubaab bi ger waaye sun borom moo ma ne rasulullah yama wax ak tubaab bi mbum waxu xaj bi mbum xotti ko ngi cee bul waxal ak xaj beew waxal ak borom xaj bi mu jaj xaj bi mu tëdd woo nga jaar ci boo del see am manoore li tax ku sob bàyyi Cheikh Moustapha booy faatu tabbi jannatu lay Ibrahima Ñang moom la jox kàddu gi mu wax nag ci turu daayira bi kon sëriñ Ibrahima bisimilah kàddu gaa ngoog bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki taalibe yi noo leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaanal Cheikh Mamadou Lamine Bara sun borom yàggal ko ci sunu kanam te wéral ay cëram di sant suñ borom bu baax bam ñu kàttanalee dimbalinu ba nu mën a fekke jataay bi noo ngi sant bu baax a baax gannaaw loolu noo ngi yëkkati nuyoo bu kawe ci ñun bu rëy bu sori ci ñun jëmale ko ci kilifa yi nga xam ni ñoo ngi teew fii ci biir jataay bi ak ñi dégg sunu kàddu te teewun jataay bi ñoo ngi leen di siyaare bu baax di jéggulu itam ci kàddu yi nuy bëgg a yëkkati te tuuti ci lool waaye mu mel ni mbooloo sunu tënkoo ba woote aw mbooloo wuy si leen jaadu nañu leeral leen mbooloo mooma lu leen boole ba tax ñu woote mu mel ni ci loolu la jukki lu ndaw leeral ko ndax waxtaan wi taxul bis jóg njàngum xasida lañ fi woote waaye munta ñàkk nag lu mu gàtt-gàtt ni wala fi léebe ni oto lu mu fees-fees nuyul ma saa yaay xàcca kon faw nu jot li ci lu gàtt ci loolu la ñuy tënki kàdduy sant yoo xam ne munta ñàkk ci mbooloo mi muy mbooleem daayira mustaawul mu naan wu sóol kaddu yooyu nag ñentee jiital mooy sunu wayjur yu ni àndanteel ci liggéey bi te nu jurnu teetañu ci liggéey bi ba suñ borom baaxeenu nu agsi ci fii tey ndax lii ñun la ko suñ boroom dimbalee ci métier mi di takkum rajo doonte yàgg naa am waaye mi ngi doore am ci Sénégal takkat rajo yi daje wut bis sant ci seexul xaddim woo ci jànkati xasida yi tey la mas a am ci senegal ci nu nit la ko suñ boroom jaarale kon mag ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu jiitu ci liggéey bi ñu fekk leen ci ñu àndanteeg ñoom laabire nu ci seenum xel di ñu teete ba nu mën a agsi fii ba mën a taxawal lii jaadu na bu taxawalee lii li ñu sant leen gërëm leen ci kanamu mbooloo mi waaye itam nag soññ képp koo xam ne yaa ngi bokk ak ñun métier mi di ko liggéey ndax métier mi dafa doon métier moo xam ne métier mu jafeñ la métier mu yomb la ndax métier la moo xam ne ku ne la jàppale Serigne Touba ci biir mbooloo mi di Serigne Abdou Sakkour Mbacke nekk ci marché Ocass jiite daayira bi di président d'honneur bi noo ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal suñu borom ndax mooy suñu sëriñ Touba ci kanamu mbooloo mi waaye nag di beral cant mag ñi nga xam ni mënuñoo teewee liggéey bi saa su nekk te fuñ ci àgg ñooñu ko ñemeloo ndax ñooñ ciy teet di ca jiital Serigne Cheikh Fall suñ ko tuddee ñu bari mën nañ koo xam ci magi jànkat yi jaxasoog moom waaye ñi ci gën a néew kon dañ ciy misaal ko ci demee ni sëriñ Abdoul Ahad Fall mooy waajuram sëriñ Cheikh Fall rajo ñu bari moom lañ miin ciw turam noo ngi bu baax moom itamit di ko sant di siyaare bu baax sëriñ Thierno Sylla moom it ñu bari ci mag ñi ñoo jaxasoog moom waaye doy na sëkk ci buñ tuddee naa Sylla ak Matar Sylla ci xam ni mooy seen way jur di siyaare bu baax itam niñ ko waxee kenn ci mbooloo mi di jëwriñu mbooloo mi di sëriñ sàmba Sey moom it ñu bari jaxasook moom waaye suñ tuddee ci mbooloo mi ku ci demee ni sëriñ Sidi Sey ak sëñ Bàcc Sey di ay doomam jamono yi ñu jaxasoog tuttàkk yi jànkat yi dana ci doy sëkk di siyaare itam sëriñ Njaga Mbay kooku moom yaakaar naa bu ñu ko tuddee ñu bari danañ ko xam ñi nga xam ne jaxasoo wuñu ak moom ci ndaw jaxasoo ak sëriñ Xaadim Mbay ak sëñ Kab Mbay noo ngi koy siyaare bu baax itam loolu nag liñ ci jublu mooy xam le ni liggéey bii ñuy def di daayira bii bi ñu koy def itam ànd nañ ci ndigalal mboolem koo xam ne yaa ngi njiitu ci métier mi daan takk rajo te nekk ci diggante Touba ak Mbàkke waaye nag beral tamit cant kenn ci mbooloo mi di sëriñ moodu Ndaw nekk ci Madiana ndax mu jàpp ci liggéey bi jàppin woo xam ne moom tamit wu kawe suñu jort la moom it buñ tuddee doomam di sëriñ Mor Ndaw ñu bari ci tut tànk yi moom lañu jaxasool beral cant itam sëriñ Bàcc Njaay ca Mbàkke niñ ko waxee léegi moom it kenn la ci daayira Miftaahul Munaa Wusul jëf nag su ko nit jëfee te yàlla rekk tax jaadu na su mbooloo ma dajee nga séeréel leen ko ngir ñu ñaanal ko yàlla loola yokk lii fi taxaw ci ay baas moo ko def addi Sëriñ Tuubaa te ci dayre bi la bokk di membre daayira bi mbooleem liñ doon laaj waa daayira bi ci ay charte daf koo matale waaye wëlbatiku nag bëgg a liggéey Sëriñ ci bis bi tax mu def ko addi Sëriñ Tuubaa noo ngi ñaan génn ñaanalal nu ko yàlla ak mbooleem ñi bokkal daayira bi du moom kase moo ci am lu toll nii wala moo ci man lu toll nii waaye def na ko ci nag mboolem ñi nga xam ne tamit seeni i àddee ñëw na ci ak seen i jëf la muy kawe kawe ci ñun jëfam ji leen gën a gis mu gën a kawe ci noonu ndax jëf ji moo ni toll kon noo koy beral ak cant goo xam ne ci mboolem daayira bi la bàyyi ko jëm si ci moom di ko ñaanal suñu borom jëf ji yàlla na ko gën a mën ci barkeb seexul xaddim di siyaare bu baax itam suñu jëwri ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi te nu jiite ñi ci mag nu ci fop noo leen di siyaare di leen jéggulu di beral ak cant jànkati xasida yi di beral ak cant soppee xasida yi waxoon naa ne jàngkat yi ak sopp soppee xasida yi ak rajokat yi mooy ñett ñi mënut a tàqali ko jàngkat yi bu dul woon ak soppee xasida yi mën nañoo bañ a yëkkati xasida yi di ko jàng ci ay baas soppee xasida yi bu dul woon ak jàngkat yi mën nañoo bañ a woote di jàngalu ndax duñ gis ku leen koy jàngal tekkatu rajo yi bu dutugoon ak jàngkati xasida yi buñ takkee ay rajo duñ ci jàngi xasida kon ñoom ñett ñoo ñi munta ànd noo leen di beral ak cant leen ñaanal suñu borom kattanal leen ba leen bëgg a liggéeyal seexul xaddim suñu borom defal leen ci lu kawe seen jort di sant itam bu baax a baax sëriñ Ndiaga Thiam menuisier métallique nekk Madiyana keroog bi ñu taxawalee bis bi bëgg ko yéene daf ñoo abal oto ñu yendoo ko def ci caravane bu mag noo koy beral ak cant di beral cant itam ki nga xamante ni mooy sëriñ Modou Seck nekk menuisier moom itamit ci Daaru Xuddoos moom it def na jëf ju mel noonu ci wàllu daamar dimbaliñ ci beral nag kenn cant ci mbooloo mi di membre daayira bi di sëriñ Basiiru la moom yàlla dafa dogal muy jëmm joo xam ne kenn rek la ku jaxasoog moom xam nga lii may wax réparateurub rajo la day defar ay ampli ak télévision ak lépp loo xam ne dafa jëm ci affaire électronique ñun ñuy ay takkati rajo sunu rajo yi lu ci paan moo koy dépanne ak yeneen i rajo yi gën a siiw dëkk bi di wax ay xasida yu ci ëpp bu ci am problème Basiru Sylla moo koy dépanne bi ñu taxawalee daayira bii mën na ni ab orloose la toog def ni orloose yëpp waaye daf cee jàpp ci jàppin woo xamante ni kawe na sunu njort ndax saa bu nu wootee day tëj palaasam moom kenn nit la ñun sax ñoo ko tane ndax ñun kenn ku ci ne booy ñëw daayira da fa mën a bàyyi sa place emprunté boo xam ne boo dikkee mu mën la weccet wii bi la jógee mais moom bu xasee jógee palaasam lenn mënatu faa jógee jëm ci jëmmam ndax lañ fay defaru lépp moo koy defar moom ci boppam jëf jooju nag kawe na ci mbooloo mi lool mbooloo mi beral na ko cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di sant itam bu baax ñi nga xam ni joxoon nañ leen ay lettre invitation rawatina jànkati xasida yi nga xam ne dañ leen a baaxoo xam mbooloo mu ñu teew ñu yëkkati fa seen kàddu ba ñëpp dégg leen te tey jii ñu am ci ñoom lu jafe ndax néewaane bis booy dem fekk fa jànkati xës yi ñu teew fa leneen fa indi weesuwul ñëw diglu su xasida loolu néew na ñu ko mën a am kon suñu yàlla dimbalee ban jaxasoo ak ñoom ban man nga am ñoom ci ñoom ci loolu ci ñoom ñoo leen di beral ak cant di leen xamal ni yëg-yëg bi yëg nañ ko te jàpp nañ ko te safoo nañ ko te xam nañ fi ngeen ñu teg itam waaye xam na ni sëñ bi rek a leen ñor sëñ bi rek ngeen di liggéeyal yàlla nañ ci tasee mbuutub sëriñ bi nongu jéggulu itam ci kaddu yi ni ma ko waxee woon jubluwun ci ak cérémonie waaye woote gi moo diis ci ñun kon dana jaadu ñu ñu wax leen li nga xam ne kaddu yi am na solo mat na sëkk yow it dañ lay ñaanal bu baax ci kàttanug seexul xaddiim sunu boroom bàyyeelaak sam ba mbooleem li nga yéene liggéeyal Serigne Touba ci miftaaxul munaa nga defe ko nu kawe sa njort ak mbooleem mambiri daayir bi yépp kon nag dañuy daldi nag wéyale liggéey bi ci kan sunu jëwriñ sunu sëriñ sunu baay tam mate ko sëkk sëriñ Njaga Mbay Maxtaar moom la jox kàddu gi nag mu tëj waxtaan wi wax ay cantam ak ay ngërëmam soññee ci ni ko sëriñ Ibrahima defe waxtaan yu mat ñu jublu nag ci li fa dajale nit ñi ak mbooloo mi muy xasida yi kon bàyyi sëriñ Tuubaa ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam noo ngi sant sëriñ Touba di ñaanal sëriñ Saaliwu Mbàkke yàlla jotal ab liggéeyam na mu ko soobee te mu jotale ko ci ak njabootu sëriñ Touba gépp nu ñaanal nag sëriñ Alaaji Baara mi ko fi wutu yàlla téeñal ko yan bi ba mu eggalee ab liggéeyam liggéey yëpp waajuram ya liggéeyal liggéey it naalu boppam nu ànd ko ak moom noo ngi ñaan ah sëriñ Cheikh mi taxawee jëmmi borom daaru yàlla dëgëral taxawaayam eggale yéeneem ci lislaam na sëriñ Touba meloon maam Thierno Birahim di rakkam di ndawam mu wóolu woon ko doy ko yàlla na sëriñ Seex Xadi eggale naal woowa ba làq ngërëmul way juróom yooya noo ngi sant sëriñ Mbàkke Daba Sarr mi nga xam ni moom lañu dëkk ci aw dooñam wi ko borom dëru tobbil di ko ko saytuloo te mu yiir nu defal nu loolit sunu dëkkee Tuubaa moo nu dimbale ba nu dëkk fi nu wëlbatikuwaat am toolit daaru max naan loola di ak xirte koo xamante ni kuy làmb boo dajee loola sam xel war naa dal ñi mu àndal loolu di ay rakkam di jëwrinam di sëriñ Modou Diop chef de village ndax boobu wàccuwaay la ma jox ba yónnee na fi délégation Ibrahima wax na ko ah noo ngi sant ah, bu baax autorité bi ni ko ah, xale yi waxe ci xam nga danoo baax rekk jox ma kàddu wante li nu wax mënuma wax lu na demee ndax boo gisee nu sàkk mbooloo sàkk nu ànd di dimbalante kenn ku ci nekk dafa am cër bu ko yàlla cëral boo xam ni mënoo jur doom ba nangoo ko ca moom ku ne xam na ni wax ji jot na ànd naa ko yar am naag teggin ànd naag ak taalube te ku ne xam na ni ah, ni nu ko waa lislaam di jàngale ci ak bëgg lañuy maasee moo tax dama leen di wax ni bu leen ma wax Baye Ndiaga ndax bari ay at taxul nga mage mag mooy nekk ci santaane yàlla yi daw ay tereem te seet naa ni ni nu àndee ba bis bi mel ni gone yu ma ëpp positif rekk la àndal ñu ma jox cër ñu yéene liggéeyal Serigne Touba ñoo xam ni wax dëgg bis bu set ñoo ngi may soññ guddi ak bëccëg jërë ngeen jëf waaye nu doolee góorgóorlu bu baax ndax tàmbali yo yomb na lool wante eggali moo jafe yal na nu yàlla musal ci cat sunu sañoon dañu leen di gunge ba bàyyi leen ak ñi ngeen maaseel te nu jur leen ngeen aw ci yoon woowu te bañ a dëpp yal na ko yàlla def noo ngi sant bu baax kilifay diine yi ak yooyu aada yi bis bi juddu tey mel ni mu mel ku ne xam na ni ah seen yéene feeñal ngeen ko ci nun ku ne xam na ni sëriñ mu Mouhamadou Makhtar la mu na daan junju naan kenn ku ne war naa wut bisam ci at di ci peese fu mu toll nit ñi bu yokkoo xam ko su wàññi koo xam ko ngir mu dolliwaat ñaaxat boppam góor góorluwaat dab dabal la ko rëccoon ku ne xam na ni bis boobu tey lu des ci nun la desee sunu digganteeg nit ñi wante nit ñi bëgg nañu kon yal na leen yàlla taxawu fay leen jéego yi ngeen dox ak coono yi ngeen sonn duñu fàtte di sant ku ñu wax soxna Fat Dieng nu bokkoon ak sëriñam muy sunu wëlëri bëgg na lool a sees yi nga xamante ni moo fi ñëw moom it noonu ko góor ñi defee joxuñu ko te laajuñu ci dara ngir dafa gis nu ne ci yoon wi rek mu yóbbante bi yóbbanteem loolu lañu ko joxe ñoo ngi koy sant di ñaan sëñ Ibra Dieng yàlla def ko mba fulal koo jëfam tàbbal ko àjjana yokk ko ay xéewal ca barsax noo ngi sant itam sëriñ Mor Ka nii ñu dendal jur Moussa Ka bis bi yéex na koo yëg wante togg na añ togg na reer ubbi na ay saalam ak i néegam ni ma kër gaangoog mooy kër gi nu sësal kon ku ne xam na ni lu ci waay yéene rek jëfe nga ko ci bis bi kon noo ngi sant bu baax jàngkat yi di xamal ni mbooloo mooy doole te dañuy dollente fas nanu yéene jàng du sunu wàll wante fas nañu yéene leen a wéttali bu baax la xewoon fas nañ ko yéene dindi rajo batterie moo daan am ñu réserver bu baax ba jàngkat bu mag ba ba ca des ñu def ko waxtaan yi ak yu ndaw ndawaan yi bu ko defee kay jàngkat bu mag ba mooy am lu neex wante ñi ca des dañuy mos rek yàlla baaxe nañu jamono di dox ba courant la ñuy doxalee sunu rajo wala groupe te jëmtukaay yu bees yi Serigne Touba jàppandal nañu ko ba ñu xam ni misik la ko daan neexal mooy rajo te kàddu gi war a neex mooy xasaayit nu dugal taabal mixage chambre écho quali équaliseur baafal ngir ak déggam bokkut ak dégguk haut-parleur ci kilifa loola lépp ngir bëgg xasaayit yi di jollit a neex moo tax nu dugg ci loolu bëgg xamante nag ci sunu biir ba kenn du bodd meroom moroomam ngir bëgg programme am yàqu nga jël ko kenn ku ci nekk foo fekk sa moroom bu paanee cim xel nga mottali ko bu paanee ci matériel am nga mottali ko te ànd bi mooy tax loola deñ ndax daanan daje ci biirub dëkk baas yi jege ki doole ëpp yëkkati ay haut-parleur dem dëpp ko moroomam ba jàngkat ba nekk ca fa haut-parleur ya néewee doole dootu dégg dara ngir baas ba mu dendal loolu deñ na tey ci sunu mbooloo ah kenn ku ci nekk fenn foo dem na leen leer ni mbooloo mi duñu kuy kutt rajo di àndal di di di wone xejj ak seen ndax sëñ Touba lañuy ñuy sàkku ngërëmam ni ko jàngkat bi sàkkoo da dem ci baas mu leer la ni ak taalube moo la fa yóbbu koom ma bariwut wante nag sa sonorisation bu neexee man nga faa am ku dégg sonorisation xàmmi ko laaj la sa adresse topp la may la beneen programme bu dolli ko ci la la teewal foofa kon xam nañu liggéey bu baax lu muy jariñ ba tax na mbooloo mi ñu ngi gindiku ci loolu na leen leer ni kenn dootu sonn ci njàng gomeel ba mu wow nga toog wax ndànk doo sonn ñu jëriñ la ko neexal la ko mu jëm ci asamaan sa ku ku ko dégg di bég fas nañu yéene loolu waaw loolu mooy mbooloo mi jóg di liggéeyal sëñ Touba ci sonorisation basa ngi nii son bi neex na ñi ngi koy filmer bu ëllëgee ku ko xool xam ni yaa def lii bar sax nanu ko malaayika ya dee seere nu roy ci ñoom dégg nga maam di nettali lu baax na ko sëriñ Touba waxee woon sëriñ Abdou laat ni bis bu nekk dana taxaw ci yow bu ëllëgee naan la loo defoon ci man bu ma tolloo ci yow loolu foofu lu nu jëm yàlla na ci yàlla jàppale kon léegi sëriñ Xaadim yaa fi taxawal njabootu sëriñ Touba sëriñ Jili moom sëñ Modou Maxtaar teew na fi ak yeneen kilifa wante yaay sëtub sëriñ ma sàmba mi doon maas xasida yi kon noo ngi lay siyaar xam na nañu ni nga bëgge xasaayit kon ci sa doole maam ci sa barke ak ni nga bëgge jàngkat yi bëgge ni xasaayit ñaanal nu bu ko defee ñuy santit bu baax sëriñ Sadda Ñang géwalu xasida yi di géwalu jànkatu xasida yi moom fu ñu teew moo baaxoo yore micro central bi wépp xewu xasida ñu ngi koy sant bu baax mi ngi ci sunu biir di santit bu baax sëriñ Ousmane Samb xasaayit moom it ñu ngi koy sant bu baax jàpp na ci bis bu baax a baax di sant bu baax sëriñ Mañas loo safoor moom it jàpp na ci bis bu baax a baax ndax lu fi teew ci matériel baas yeeg weñ yëpp moo ko teg ci otoom jëlee ko Mbàkke indi ko fii ñu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal di santit bu baax ki nga xam ne ni bu baax si ñëwoon rek jalu te wanewu ci xam-xamam defu ci pas-pasam ak pëstéefam bon fee lañ koy fekk rek mu di jàll muy sëriñ Jili Ndaw moo jàpp ci baas bi jiite ko ñu baas ko ba liggéey bi mel nii yemu ca mu xëy nag jëlub tournant bi sa ko mu ak peesam taal làmp yi ñu ngi koy ndax moo leen fi indi xasida dong moo leen fi ñu ngi lay jégalu bu baax ci toogaay bi kon sëriñ Moustapha nga ñëw ñu jox sëriñ Abdou Ndiaye mu wéyal liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki yi ñu ngi leen di nuyu seen kenn ku nekk turam ak santam di sant bu baax a baax a baax nag waa daayira bi. cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem lu ko waral mooy liggéey bu rëy bii ñuy liggéeyal Serigne Touba képp ku la ci woo ku ne yaa ko war a neexal yaa ko war a fay ndaxte liggéey mënut ñàkk kon nag ku la woo ci liggéeyal Serigne Touba mënoo koo fay ñu ngi leen di sant bu baax liggéey bi di ñaan yàlla mu yokk ko bu baax a baax ba mu àgg fu kawe seen jort di leen xamal nag ne liggéey bi dafa mel ni tey lañ ci tàmbali ak yéen waaye bañ ko bokkee yàgg na ndax noo bokk ab liggéey bokk ab yëngu bokk ak bëgg tey dañoo wax ne lu dagg lu ne morom ji rek lay wëri noo bokk métier mi muy xasiday Serigne Touba yi ku nu xam moom nga nu xamee ku nu bëggit moom nga nu bëgge ku nu jàppit moom nga nu jàppe ñu bokkook yéen jàngkat yi ak awkat yi ak soppe yi ak takkatu rajo yi ak producteurs yi yëpp benn lañ ñoo bokk ak bëgg te ku ne xam na ne sunu yëngu gépp yàlla xiir nañu jubale ko ci liggéey Serigne Touba ci xasida Serigne tubaa yi di produire ay jàngkat ba looloo nu may turu Moustapha Fall Murid Saadix wi Moustapha Fall dong lañ tuddoon ban ban ñuy tudd Murid Saadix gi xasida yi moo ko ci yokk kon nag dañ leen koy leeralal ba ngeen xam ne Murid Saadix gi xasida Serigne Touba yi moo ñu ko jox bu leen di xamal nag ne leen jëf ji ngeen di naw ñun tuuti na ci ñun xeeb nañ ko lool